maa ngi tudd Soxna Ndiaye madame Diallo fii laa dëkk depuis 2008 laa fi toxu si presque bi ñu fi toxu si fii trois kër rek lañ fi fekk woon mais mbalit mi moom depuis boobu ñoo ngi dund ak moom buuju maan yi dañuy lakk di wut ay feeraay di fi wut ay bagage fumier bi dañuy sonal duñu nooyi guddi gi doo xam nooy def yàlla bu mu tombé ba courant coupé nag booleeg yooyi ak ndox mi ñuy ñuy gën a yooyu di gën a multiplier wu ñuy gën a sonn ci sibru lañ dëkk moo ndox mi moom boo ko laalee sax dèjà man man ndox mi dama ma sonal dala jox ay putantaan suñu xale yëpp am ay putantaan ak ay varis ñun daal fii dëkkuwaay bii war na yàlla bu amoon beneen dëkkuwaay boo xam ne kër mun nga ko ne ñu coppet déplacé ko yóbbu kon dinañ ko def poteau lampe bi dañ koy lakk suñ ko lakkee courant bi jour boobu sapeur moo ñëw fay ko sapeur ñëw na trois fois jaabante sapeur Thiès fii mujj gi nee na ñoom dootuñ ñëwati buñ nañ waxanteeg ñii ñu bañ a taalati fii ñoom déplacement ñëw fii di fay ay poto lampe nee na ñoom dootuñ ko defati nañu wax ñii lakk fii ñu bañ fee lakkati. saxaar si am na ñoo xam ne fii dañ fa dañoo asthmatique am na ñoo xam ne sax dalu leen woon mais dañoo dañoo mujj dem ba asthmatique da day mot seen dënn yi sonal leen witt saxaar si day dem ba koñ ak koñ. day déplacé wu fii dem ba koñ ak koñ si bu jubloo fii rek kër googu dootoo ko gisati jamonoy corona gi bu jumaane waxuma la corona gi sax même bu dul corona mais lu ñuy dund fii moo raw corona bu jumaane dañuy tilim ñuul kukk ñëw di dugg suñu kër yi may ñu ndox may ñu lii ak seen taqaay waxuma laa nag ak corona bi dugal sa loxo yi si biir dangay ngay dem ba da ngay bon te te fekk na sax ñoom ñoo la koy yóbbee franchement li ñuy dund fii métti na ñun daal suñu sañoon lakk bi ñuy lakk fii mbalit mi ñu bàyyi ko wala mbalit mi ñu génn ko fi sëqal ñu ak ay xeer wala ay carrière xam nga ba ba a bañ indee mbalit mi daal parce que mbalit mi sëqul dara mbalit mi boo ci tabaxee déjà balaa yàgg mu rës da nga gis fii nit tabax fi war a war a dëkkuwaay parce que nit day nekk ci location sonn ba dee ñëw war a war a war tabax këram tabax ko ba pare war see dëkk doo doo toxoogum sax mu daal di rës. bi ngeen di jënd terrain yi xam nga bi fi ngeen ko ñun bi ñu dëkk si mbalit mi pax yi fi lañ ko fekk nii mais quand même ñun fi ñu dëkkee moom amul woon ay ki kii mais fii carrière la woon. maanaam day dox di ñëw. ma non mbalit mi sax ga day avancé moom gaa day avancé mais ñu bañ a sëkkati mbalit dañu sëkkal ñu ay xeer wala leneen lu dul kii xanaa am na beneen matière boo xam ne bu dul mbalit mbalit mi c'est pas loo xam ne mun naa Macky Sall ci boppam mi président de la république mu ñëw dimbali ñu ci lii parce que moom moo yor ay ay ay ministère am ay élément ay léppam mu ñëw dimbali ñu lii te yàlla rek tax lii moom ku koy dund te nekk jullit war nga see dimbali ñu fi nekk yàlla xam na ko ñun dañ fi da nga fi dëkk si même pas deux ans trois ans nga feebar si c'est pas l'appel sax pour nga dëkk fi Abdou Sané depuis 2011 maa ngi fi fii moom bu ñu amoon pexe pexe pexe naa déménage jóge fi. saxaar bi surtout saxaar bi bu ñu saxaar bii kër yëpp lay fay doo mën a nooy doo mën a nekk si amuñu pexe moo tax ñu nekk fi mbalit yi borom saret yi dañuy xeex ba sonn xeex naa fi ba sonn nag ñoom dañuy tur ko si yoon bi dem seen yoon moom man ma ma amoon moyen kenn ñëw tur bi fat mbalit bi fii doy ñoom sëkk depuis 2011 maa ngi fii di souffrir. 2011 2011. waaw yow 2011 bi ngay ñëw fii mbalit mi tollu woon na nii. mbar na fële fële nekkul fële. waaw. mais dañu doyal sek sëkk sëkk sëkk sëkk forum sareti ñoo ñu sonal jàkka ji buñ julli moom buñ julli moom xanaa ñoo fay kii saxaar bi fu ñu mën a julli mais sin duñu mën a julli foofu saxaar bi jàkka ji dafay def saxaar dañ julli dem ñun li ñuy ñaan comme mu ne ki jàppale ñu arrêté tuur mbalit yi fii soit ñu suuf si tuur ko fii mu fees benn yoon noppalu soit ñu yóbbu ko tuur feneen foo xam ñoo xam ko kii mais fii moom ñun dëkk ni actuellement fii mhm. nit yi moo tax ñu ñaan vraiment ñu dimbale ñu ñu jàppale ñu affaire bi ñu wel ñu sëkk sëkk dañu dellu sëkk parce que neexul yow da ngay ñëw sonn bu sa kër boo demee boo doo mën a doo mën a saxaar day ñëw doo mën a doo mën a xale yéen seen bés a pare surtout ñu am n'a pas les moyens les soins à chaque fois ah plus bu ñu jaxee ji si mi ay waat heure bii xam nga gis tey moom am nga chance sax bu fekkee ne saxaar bi kii na yéen dañu ngeen yaa xam ne dellu sax doo leen di yàgg fii parce que saxaar bi baaxul li ngeen nooyi baaxul kenn wérul moo tax ñuy ñaan ku mën a jël mbalit kii bii soit ñu éliminer ko kenn tuurati mbalit loolu moo ñu gën ñu ànd ñu carrière tur ko fi bu fekkee ne bëgg na mu fees ñu ànd ñu camion ku tur ko fii mu fees del ñu noppal benn yoon moo ñu gënal. Oustaz Abdoulaye Dieng laa tudd man maay imaamu jàkka ji nga jàkkaarloo ñu waaw. fii def naa fii 12 ans wala 13 ans ci 2007 laa fi ma naan ñaar nit wala ñett ñoo fi jiitu lu bari ci quartier bi fekk na fi suñu dëgg-dëgg fii mooy. déposé kàmb gi ñëpp moom la ñuy jooy ñëpp moom la ñuy jooy xale yi fii feebar mag ñi asthmatique ay feebar yi dënn feebar yi dermoto lépp am na fi ndax kàmb gi jooy nañu ko wax sonn autorité yëpp wax nañ leen ko mairie Thiès wax nañ leen ko maire Talla Sylla dëkkoon na fi kër gële ngay seen logé woon na fi kër gële étage bee ngay seen puj bële dëkkoon na fi jooy nañ ko ba sonn mu dig ñu def ci dara maire commune Fandène wax nañ leen ko defuñu ci dara parce que ñoom dañuy ping pong maire Thiès dañuy wax ni ñoom moomuñu fii suuf si moomuñu ko maire Fandène dañuy wax ni ñoom tuuruñu fi mbalit noonu la ñuy def kenn nangul jëf responsabilité. waaw gis nañu tey jii saxaar yu lëmbee na trop fat bu nekk nii saxaar bi ngeen am. tey sax tane na soxna si parce que dafa taw mais bu fekkante ñaar weer bi ci gannaaw te ñu ngi ci lan mois d'août mois de juillet juin juillet fii kenn du noyyi guddeeg bëccëg nee naa la soxna sii nga gis étage bii borom abandonné këram pendant deux mois mère Ndiaye mii mooy yaay Talla Dieng Ablaye Dieng sa menn mi la doon wol ñaari weer tëj na ko kër gi dem dëkk fekke doomam ja ca parcelle ndax mënatul woon dëkk ci kër gi ndax sax xool kër gi ni ko tabaxee xam nga xaalis ba la ci borom def su ko abandonné ndax ndax mbalit mi ñaari weer bëkk dem bi tawee ba xaw a dal lay doog a ñëwaat. ñàkk pexe danoo jaay ah bëgg ay kër rek jaay nañ ñu suuf si ñun biñ fiy jaay booba comme tuur bi demewul woon nii dañoo jegge sañu fi tuur rek kees yëpp fi lañ tuur seen bañ kees yëpp te fii léegi ak quartier la quartier populaire la quartier bii moo ëpp R100 moo sax jàmm gën moo sax jàmm gën quartier bii mu commencé fii ba ci rokaat ba ci guy ga fii ne li ci nekk daa ngi ci habitant kenn xamul lu toll école élémentaire baa ngi nii directeur da ko sama xarit la mën naa ko woo léegi bu ñëw dafa nañ ci examen yi su sa xarit si ñëwee directeur bi den day bëgg sax génne élèves yi des fois école élémentaire baa ngi nii ngay seen boo taxaw da nga koy seen ci population bi mënuñu soo joow nañ ko ba sonn ministre bi fi bi ñu dégg ni ñëw na fi dafay ñëw ànd ak gàngooram lee la fi def ñetti kam euh, yow suuf la fi ànd ak mairie Thiès ni sëkk nañ ko bindi seeni rapport ni sëkk nañ ko xool kàmb gaa ngi nii nga gis sokkuñu fi dara ñetti camion suuf rek la ñu sotti dem seen yoon parce que lii dépôt sauvage la amul benn réglementaire kenn autorisé wu leen parce que lii ay kër la ay kër jàmbur am naa fi soo benn dëkkoon Amady Ndiaye fi soxnaam si dafa asma kon ni seen habitude ak mbalit mi am na ñoo xam dañuy dañ fi amoon kii typhoïde parce que dañ ni ndox ngar gi lu ngeen di noyyi ak ndox mi moo leen ko indi man mi defoon naa test typhoïde daaw jëri kii laa ànd ak sax. ah fii bi ñu fi 2000 la fi nit ñi commencé dëkk ku ñuy wax docteur Diallo vétérinaire moo fi jëkk a dëkk kër gii ngay seen kër gële docteur Kana nga ne xam na woon maa ñetteelu ku fi dëkk mais man ma fi dëkk léegi def naa 12 ans ceen fi 2007 laa fi ñëw boobu léegi kam ngaa ngi fi wax nañ wasoon xale yëpp fi leen juddoo Yacine Diouf laa tudd dëkk fii ant ma nekk jigéen nag ñun ñëpp nekk ay jigéen ñu sonn lool si mbalit mi da ngay am gan sax da ngay da am gan sax gan gi du mën a nooyi ndax mbalit mi wàññeeku waat poto bi bii suba ngoon mi ngi tàkk man dem naa ñaar si ñuy liggéey Senelec di leen ko jooytu waaye mun ñoo fexe ba ñu ñu defal ñu ko man maa mujj di dem ngénte ma gis ko muy tàkk ma dem simmeeku waat ma dem simmi sama yére ma doon war a demee ngénte daal di wut ay birig ma wut ay birig ñëw dajale ko di aar poto lampe bi ñetti yoon tàkk na ko fi mun ñoo fexe ba am ku ñu dimbali ñoo dañoo sonn ñoo ngi dëkk fii si boole kook xet gi néegi boo si duggee da ngay waaru euh, boo weeree say say yëre ci ligne gi mu ñuul gan goo am noonu lay mujjee du xaar sax añ bët ki démb am naa gan boo xam ne ñeenti at la am xale bi démb la ñibbi ndax saxaar si mu jooy mu ne ko looy jooy mu ne ma yaasin saxaar si dafa métti ñun seen dëkk amul saxaar kaw la amul saxaar lii métti na lool kuñ ci nag ñu jël dañoo sonn nañu xet gi xet gi nag moom kenn mënu la koo wax tey sa saxaaru bu saxaaroon tey duñ taxaw fii tey dañoo sonn buujumaan yi ñoo koy taal ay xale yu ndaw ñooy jël pono yi taal ko su ñu xëyee jël weñ gi dem peese ko fii si ginnaaw peese ko dem jaayi ko subaa ngoon ñoo ngi ciy waxtaan ñu ñoo mujj sax wut ay pono pono yaa ngi nii gis nga ko nii fii ba ba fële ay pono la ñu wut fay ñu defaral ñu ko ndax sonn dañoo mujj di reyanteeg ñi tuur mbalit bi di xeex ak ñoom tey rek moo ci mujj dañoo ba dañoo baaree fii ñuy bëgg di tuur sans booru kër mën ne ko fii nag fii du kër la du yoon ndax su ma leen fi bàyyee tey ngeen jàll su ëllëgee da ngeen fi tuur saako wacc fi saako su ko defee ñu sonn ñun dañoo sonn mun ñu looy wax xet gi fi ñu toog sama bët yi yàqu na ndax ndax ndax saxaar sama bët day wex xat ñi fi dëkk ñoom ñu laa wax xet gi rek na naka la mel gis nga bu bu saxaar si jeexee bu taw bi bu ñu bu taw bi paree bu waa ji ñëwee puus doo dugg ci néegi da ngay dar sa gémmiñ bi fi njëkkee dëkk dama doon waccu am naa fi juróomi at léegi su ñoo sonn maa ngi tudd Amadou Ndiaye dëkk fii ci quartier bi ginnaaw bu ma nuyoo mbokk yi ziar leen bu baax ñëw fii rek di wax suñu métit ak su am li nga xamante ni suñu jaaxle la ndaxte ci dëkk bi lañu bokk ci réew mi lañu bokk ndax ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk suñuy baat eh, ñuy nekk kilifa ci dëkk bi eh, ñu koy tàmbalee ci monsieur le maire Talla Sylla moom tamit li fi nekk ci situation bi def naa ne umb ko ci ndax dëkk na fi gën ngaa gàtt quatre dëkkandoog ñun fii à face donc situation yi fii population bi di dund métti na trop ñi nga xamante ñoo fi dëkk di ay responsable ay famille dañuy sonn lool ci problème mu mbalit bi ci saxaar bi chaque jour que jëfee tey li ngeen gis nii tey mbalit bi tey tàkk tàkk amu fi sax mais dina toll ci période boo leen fi ñëwoon da ngeen naan fii nan la fi nit di mën a dëkkee mais loolu lépp tamit ci manque de organisation la ñi nga xamante nii tey ñoo fi ñoo fi dëkk di fi daan seen doole mën naa ne fii société la wala entreprise ndax lu mu gàtt gàtt mën nga fee génne lu mat quarante famille yu nga xamante ñi fi daan seen doole di am loo xamante si tout ñu ngi koy yóbbu seen i kon yooyu yëpp bu ñu état taxawoon tey jàppale ñu organiser wu donc population bi mën cee gis seen bopp ñi nga xamante tamit di fi nekk ñu bañ a mbalit bi ñu wut fu leen di tuural organise am organisation bi nga xamante ne tamit euh, donc ñu fi dëkk tamit lii booy xool tamit insécurité mu ngi ci biir. ñi nga xamante ñooy daan seen doole dañuy jël seeni i tamit ñëw ba ci bunti kër yi jàmbur ñu exposé ko foofu léegi yow loolu tamit day ëllëg da yàlla tere tey bu yenn affaires yi amoon tey balaa ngay xool tamit saay saay mën na fa làqatu leneen ak leneen li ci mën a juddu bari na trop kon donc ñun amul ñi ñu mën a waxal mooy ñi nga xamante tey ñoo ñu suñuy njiit ñooy suñuy kilifa ñu dénk leen suñuy baat ñu nekk ci biir dëkk bi ñoo ñu mën a taxaw ñoo ñu mën a jàppale li ko dalee ci monsieur le maire Talla Sylla préfet ñoom ñëpp ñëw nañ fi barki dee moo yaay ministre bi ñëw na fi donc bi ñu ñëwee ñoom ñu dugg ci biir la ci bunt ba la ñu xool booy xool face yi fële ci entrée bi rek la ñu yem daal di sotti foofu ay quelques camions suuf daal di maasale dem seen yoon boo teel boo rombee ci yoon bi sax da ngay jàpp ne mbalit bi mi ngi ci biir fii moom c'est fekk boobu population bi ñu ngi ñu ngi sonn ñu ngi sonn trop ñu ngi am loo xamante metti na leen lool lépp nag autorité bu nekk ci dëkk bi euh, su région bi fii ba dakaar kuñ ci mën a jàppale nga jàppale ñu jàppale population bi li laay war a nañu trop ci coono yi vraiment